Aline Sitoé Diatta moomu nag tey ngir waxtaanee ko dañoo dalal euh, Sékou Somb ministre conseiller la nekk itam président comité de pilotage pôle de développement bu Casamance euh, di inspecteur de du trésor de formation waaye Sékou Somb li tax ñu gën ko tànn mooy euh, gëstu na ci Aline Sitoé lu bari. bokk ak moom déjà fi mu cosaanoo waaye itam def ci moom liggéey bu mucc ayib ñuy gërëm professeur euh, El Hadji Amadou Fall euh, mi nga xam ne moom moo waral euh, diggante bi mën a sotti ba ñu mën a toog di waxtaan ak moom monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Demb ak Tay gërëm la surtout ci disponibilité bi. jaajëf maa fi ngoom ma ngi lay gërëm ma ngi lay sant di lay wax ni que yow laa war a gërëm. ngir aussi bëriwuñu xam-xam waaye dañuy gëstu rek góorgóorlu euh, kon nag bu dee suñu wax kàddu mën na amal njëriñ askan gi euh, amuñu leneen lu dul gërëm gërëm leen gërëm la yow mi nga xam ne mayaa tax tey mën na am sama kàddu àgg fu mu waatoon àggu àgg euh, mën na am aussi donte benn wala ñaar nit la mën na am sama wax ji tey dina dina dugg te fekkee loolu mënoon na ñàkk am parce que occasion boobu amutoon. jërëjëf ma fàttali aussi ne chercheur nga maanaam da ngay gëstu ci lu bari Aline Sitoé Diatta mi ñuy waxtaanee tey nag da cee gëstu aussi lu bari euh, kan mooy Aline Sitoé Diatta. bu dee man may nga ma ko mooy wax ni que dara yàlla rek mooy neen moo xam ne dañ ko sàkk dafa sàkkum boppam ci neen waaye lépp loo gis rek am na lu ko lal. ñu xam ko wala bañ ko xam Aline Sitoé pour nga xam comme muy Aline Sitoé war na xam war nga xam moom mooy fu mu faax fekkee baax fu mu faaxee ko parce que xam nga ni que Kaasa ci biir Casamance Kaasa dañoo nekk euh, groupe boo xam ne mun na am amuñu influence bitim réew kan nag Afrique nu mu meloon ci suñu cosaan yi depuis Misra Égypte ñoom loolu la ñu denc ba tey kon loolu mu mun a tax nga ku mën a comprendre su ma mayee nag mën naa jaar ci loolu ci gàttal mm-hmm. Afrique ci njëlbeen deux cent mille ans booba ku nekk xam na ni que euh, jardin d'Éden Afrique la nekk région des Grands Lacs fa la yàlla ci mbaaxam wàccee doomu aadama Afrique nekk euh, doomu Adama nekk Afrique muy meññ di meññ dem ba génn continent Afrique dem booru tugal donc envahir àddina si yépp foo manti dem ci àddina ñi fa jëkk dem ay nit yu ñuul lañu kon euh, tey ñun suñu maam yi ci euh, Misra Égypte ñoo jëkke gëm yàlla ci àddina ñoo jëkke génnee xam-xam science mathématique loolu yëpp tey moom leer na ni Afrique la loolu yëpp fexe ko kon ñoom ñoo jëkke bind ne àddina ya euh, yàlla jigéen la jëkke sàkk soog a sàkk góor pour bànneexu jigéen ak meññeef euh, doomu aadama noonu la demee woon ah donc kon nag waa Kaasa ci seen bopp bu ñu gëmee loolu fonk ko jàpp ko jigéen daf si dafa am beltey ji dafa am doole loolaa te boo leen xoolee même yéen sama bokk séeréer yi mm-hmm. pulaar yi ñi nga xam ne euh, séeréer yi nga xam ne séeréer pulaar yi nga xam ne ñoom ñoo ma yar <laughs> man ci euh, milieu pulaar laa juddoo yaroo ca euh, boo xoolee ba léegi dafa am lu des dañuy naan jigéen niñ ko noot jigéen Afrique dañ ko noot mais dañuy war ba xam ban jigéen Afrique lañu noot ndax ku jël benn kër wala ki nga xam ni dafa am yeneen xeet yu ñëw noot ñu ba raxas ragas suñu xel ba tey ñoom ñuy xalaatee ni ñoom jigéen pour wanee ni jigéen la yàlla jëkki sàkk ñu gëmun ko loola loolaa tax jigéen góor du uti boppam jabar amutoon jigéen muy utal góor jabar yaay ji la bàjjen ji la euh, tantam ñoom ñoo doon utal jigéen góor euh, jabar bu ñu xasee utal góor gi jabar ba noppi aawo ba mooy utal jëkkëram ñaareel ñetteel fukkeel téeméer ba yépp aaw bi moo koy utal jëkkëram loo moo tax ñu ne aaw buur këram euh, boo gisee tey ñu xale yi ngeen am souvent problème tey ana nga anama ana nga anama jabaru ana nga anama wala jëkkër ana nga anama bay nañ ko ba tur yi bi ñuy wax tur gi du bàjjen baay bu ju baay bu góor la eh, baay bu jigéen pardon baay bu jigéen mooy bàjjen nijaay du nijaay niyaay la donc loolu lépp dafay wone doolewu jigéen ci askanu nit mu ñuul euh, xale bu juddoon sant amutoon solo li am solo muy tur xale bi loolaa tax boo dem ba léegi sax boo demee seeti tariyaan yi bugg mu wax tur mm-hmm. euh, sëriñ tariyaan parce que du sëriñ yi euh, du l'islam l'islam koy teree sax mm-hmm. ñii def lu yooya mm-hmm. soo fa yóbboo turu Seexu Sambu boo demee fa lay laaj nu mu tudd yaayam nu mu tudd kenn du la naan baayam lu mu tudd parce que bàyyi euh, xale ya dañ ko doon jox turam dan euh, dendale ko ak turu yaayam loolu moo indi comme yow séeréer gi mm. euh, dibóor jaxeer nga xam ne dibóor doomu jaxeer la walla waali kumba waali doomu kumba tur gi nag dañ ko doon nëbb kooku sama papa ku baax ki yàlla na ko yàlla xare àjjana di Saliou Kandji moom ma ko doon euh, jàngal bu xale bi juddoo yaayam moo ko jox tur walla euh, goro gi maanaam yaayu jëkkëram walla moom yaayam ci boppam muy maamu xale bu jigéen bi mooy joxe tur gi waaye papam du war a xam tur hmm. doom ji parce que su ko xamee comme ñun góor ñi dañoo euh, dañoo loof bu préfère ba ki nga <laughs> xam ne euh, mooy euh, Aïcha ba bu xasee raay bopp ku góor ka bu ko laajee xale bi mu tudd mu nag ko jox tur <laughs> mu siiw mu daal di koy xam mun na ko yóbbu ñu liggéey xale bi loolu moo tax buñ ko tuddee ba noppi ñu dañ ko jox beneen tur dagantal nëbb tur bi nëbb tur ji moom xale bi ci boppam du xam turam lu dul bu dee xale bu góor la bu demee ba dugg lël saalu kanji ci boppam ma ngi baamtuwaat yal na ko yàlla xaare àjjana may wax loo xam ne tey ñemew ma teg lu dul dëgg ci kaam mm-hmm. nee na moom ci boppam turam keroog bu muy dugg Euh, mbaar ci lañ ko soog wax luy kuy turam am na leneen lu muy àndal sax loo xam ne peut-être que duma ko wax ci rajo ak télé donc lii yëpp dam ci bonoon ñëw rek pour wonee nii mun naa ci xuus lu bëri pour wone doolew jigéen fu mu tollu loolu laa tax yenn xale yi xale yi boo amee koo xam ne danga ko bëgg dangay fexe ba takk sëram xarit mm-hmm. wala yaayam di koy lëtt loolu yëpp pour ñoom ñu tànnale pour nga nekk dugg seen biir kër nga nekk seen goro mm-hmm. boo ko xasee am sa goro yi ngemb la say njëkki ngemb la sa jëkkër mënul ci yow lenn bu la newoon sax fase la ñu ne la toogal te mënul ci dara demoo fenn waaye bu ñu la Euh, fase ji tamit ki la indi woon di euh, aaw ba bu dee doo aaw moom moo la mën a génnee kër gi wala kan mooy yaayu sa jëkkër wala say njëkke lii moo indi doolewum jigéen ci Afrique waaye tey xale da nga di naan waaye ma maam sama jëkkër ah yaayam bëgg ma commandé wala sëriñ mi bëgg ma commandé waaye njëlbeen néewlu moo ko indi woon institut nag noonu tamit la demee moo tax Afrique rek nga gis ay buur yu jigéen àdduna wëlëngal ci arab ya ci tubaab ya foo gis buur rek bu jigéen buur la parce que jëkkëram buur la am amuñoon liberté wax lu leen neex xalaat lu mu leen neexee loolu xam ngeen ci lu bari bari bari bari bari bari mm-hmm. parce que loolu culture la arabe lu jiitu diine culture arab la véhicule bu ko andi ci Afrique muy diini gi loolu mooy njumte gi euh, donc Aline Sitoé ni ko yaree belte yi moo am dëkk ba sa jabar sañoo sax mu génn ba euh, génn ba ñëw nga laaj ko foo demoon ñemewoo ko ba tey jii ah ci kaasa boo demoon tey hmm. loolu moo fa am ba tey elle est dem fu ko neex wax lu ko neex bu jigéen ñi day bo les boo def les femmes du bois sacré gis ngeen li ñu li ñu liggéey ci wàllu Casamance mm-hmm. liggéey ji ñu mën a def ñoom góor mu nu ñu ko def dégg naan ci rajo bi aussi même euh, Soudan du Sud jigéen ñi ñoo taxaw pour régler problème yi loolu dafay woon nekk Afrique wëlëngal la mm-hmm. donc ci juddu jooju moo waral liberté bu muy am xalaat lu mu la neexee wax lu mu la neexee mu waraloon Afrique mu am ay jiit ñu mel ni Aline Sitoé ñu mel ni Ellen euh, Disso parce que Aline Sitoé gën a siiw c'est mais am na ñeneen ñu ngi jiitu Ellen Aline Sitoé am na ñoo xam ne ñu ngi fa ba léegi mm-hmm. ku mel ni Ellen Disso ku mel ni Kuito ñoom ñëpp ay jigéen Casamance lañu loo xam ne ñoo xam ne dañu am. liberté xalaat ba ñu yàlla may leen lim leen may ba léegi encore boo demee tey ci usuy am na fa ay jigéen yoo xam ne ay jiit lañ donc ñoom nga ñu campé loolu pour ñu war xam lan moo indi mm-hmm. euh, maanaam fësal gi Aline Sitoé fës ngir mm-hmm. elle était libre de pensée d'esprit mm-hmm. et d'action léegi Aline Sitoé pour bañ guddee lool nekk hors sujet am na solo voilà donc euh, Aline Sitoé boo doon maanaam sotti tur gi ci wolof mooy jigéeni Sitoé Aline muy euh, ji euh, sœur mun naan nekk frère bu dee ku jigéen ki may wax mu naan Aline bu dee ku góor ki may wax mu naan Aline waaye bu dee yow ak sa sœur da ngay naan atium ku góor ak ku góor bi wax affaire frère am dafay naan atium waaye quand c'est des sexes opposés on dit aline donc la sœur de Sitoé euh, xaw ma ndax dina am jot ñëw ci ñu ko bindee sax man damaa jàpp ni ci sama xel bu gàtt mm-hmm. niñ ko bindee du noonu mm. noonu waruñu ko bindee ñaari faaj ñaari arif la ñuy def aline ñu bind fee Sitoé loolu maanaam dañoo sotti tur ji lu muy tekki xam nga ba doon naan tey mus keebaa mhm. doo bind mus muy jigéen benn keebaa muy soxna su mag si mhm. moom mooy mus keebaa ci soose boo ne mus koy mooy jigéen ju xees mhm. doo ko bind ci ñaar booy bind kenn buggul doo bind kenn teg si buggul booy bind ci américain Williamson wala Johnson doo ko taxale daa fekk ne ñi nga xam ne ñooñu ki bind ci Aline Sitoé ñi nga xam ne suñu mag la ñu amee leen jukkal parce que bind nañu lu baax lu bari ci Aline Sitoé ñoom amoon nañu xeexoon nañu seen xeex particulièrement waa club culturel ñoo bindoon yooyu suñu mag lañu waaye daa fekk ñoom dañoo judduwul ci biir kaasa ils sont pas initiés ba ñu xam lu bëri ci biir moo tax man su may bind sama doom Aline Sitoé laa ko waaye benn en ah, un seul mot euh, donc euh, mu ngi juddoo fu ñu naan tey Kabrousse waaye Kabrousse turam diggantaan air la air mooy turu Kabrousse fi Aline Sitoé fekkee baax mu am ñett dëkk yoo xam ne ñu ëmb tund di ñu naan air Moosor dëkk bi ñu naan moso dëkk bu ñuy naan ñaalu ak euh, kajaakaay kajaakaay nag mooy fii Kabrous mu jëkke soso ci Kabrous ñenn ñi ñëw waaye ne tey xoolal li mbir mu yàlla ñi nga xam ne ñoo jëkke dal foofa ñoo gën a tuuti tey voilà alors bàyyi euh, Aline mu ngi tudd Silesia moom mooy bàyyu Aline Sitoé xam nga tur dafa am lu muy tekki boo jëlee par exemple Pierre mooy xeer euh, boo jëlee Claire mooy ko xees dama euh, muul benn téere boo xam ne publier guma ko dama jël tur yi ñu yor tey tur bu nekk boo xamee fu mu fàqee ko ci lànk euh, kalama bu mu fàqee ko di nga xam lu mu tekki xam nga boo ne Abdallah mooy jaamu yàlla lu muy tekki boo ne Euh, Aboubacar tamit n'est-ce pas su ma yoroon sama livre tey euh, li may bind mm-hmm. dinaa la mën a wax loolu yëpp lu muy tekki. mais am na ay tur yoo xam ne tey sax yu ñuy so yu ñu yor yu ñu yor yu ñu yor bu ñu la tekki yow lu muy tekki ci wolof wala ci joola nga fab xeex. Ah. ah mais oui mais clémentine. mooy clémentine bu ñuy lekk. Ah <laughs> loolu lay tekki <laughs> Florence mooy tóor-tóor mm. <laughs> donc pour te dire que moo tax. nan samay doom par exemple dama delloo si tur yooyu man gëw ma ni ay tur diine amul nit mën nga tuddee nag ba nekk ci diine ki nekk ci lislaam wala ki nekk ci catholicisme muy diine yu bees yi man nga nekk ci biir nga xër ci ba ñi nga xam ne liggéeyal nañu diine boobu nga tuddee leen doom loolu d'accord naa parce que man tey sama doom Cheikh Anta laa ko tuddee parce que moo ma jàngal moom ma yar donc mu gëm ko am naa samay xarit ñi bokkaloon jamono am doomu jigéen ñu tuddee leen Cheikh Anta. Ah oui parce que dañoo yéene woon tuddee seen doom Cheikh te amuñu góor ñam jigéen tuddee ko Cheikh Anta. loolu moo indi par exemple euh, ay tur yoo xam ne Issa. Issa benn maanaam euh, jigéen la woon koo xam ne dafa amoon maxaama ci Misra Égypte. ñi tuddee ko Issa góor ñi tuddee ko Issa jigéen. voilà donc papi Anicitoye. moom mooy silesia lu muy tekki mooy du ñu say boos du ñu say yos. waaw maanaam nag yi xam naa ni mun na am papa yi silesia booba maanaam dafa baaxantal mun am ay maama wala affaire mm. nag mu doom muy gaaral. Mm. ñooña ne nag yi moom leen ko ko moom. alors silesia boobu doomu baayam mm. muy elu baleñ kooku mooy frère Silesia elu balañ mii nag moo jur Sitoé e, Silesia jur Aline Sitoé fokk fokk na yéen xale yi surtout mhm. te yàlla may leen am xam-xam bi ngeen yor dem di jàng dem université ak yu mel noonu foog ngeen gëstu xam li amoon li seen maam yi ci lu ñu nekkee woon mhm. bañ ko xalab rek parce que am na ñu ñëw ñu ne ñu ñu ay gëmmuñu woon yàlla ay xabla amuñu waaw ak mm. loolu du wax te gis ngeen ni que mu ngi gën a dellu si waat mm. c'est-à-dire que sa doomu ndey sa ndey ndey mu ngi ñëwaat ci affaire lu jigéen kenn du ne sa sa doomu ndey moo gën a jege sa doomu baay <laughs> alors donc boo gisee ñii tey say frair su ñu amoon tey doom ki nga bokkandee ak baay du la jox njëkkee lu tax du la jox njëkkee sa demi yow moom yàlla jox na nit ñi jëkkee pour que diggante bi gën a ratax loolu moo tax si Silesia bi jur Aline Sitoé am doom mu tuddee ko Aline Sitoé mooy sëru Sitoé bi nga xam ne son frère moo ko jur donc bu dee da ngay wax ci français Aline Sitoé cousinu Sitoé la du frère am xam nga loolu bokk na ci euh, euh, comment sa s'appelle njumte yi nga xam ne ma bañ comme rajo la ñu nekk rek ma bañ euh, guddal lool après mën na am nga laaj ma ay mm-hmm. laaj pour ci nekk intérêt boo ciy am beneen jumte boo xam ne ñu ñuy wax souvent ci alnicité yi euh, mooy bi mu nekkee gone mu am miti tànk ba da doon soox am na ñu bind ne polio la amoon man de li ma wax toujours mooy ñu bëri dañuy wax ci loo xam ne xamuñu ko parce que société africaine dafa nekk société initiatique soo initié wul doo xam li ci biir li ci biir ak li ngay gis ñaareel du benn loolu la Marx Karl Marx li naan l'essence et l'apparence mhm. si l'essence et l'apparence coïncidaient toute science serait superflue mhm. initiation bi mooy science bi mën na taxaw nga xam li ci biir ba xam ndax den doon na ak li ngay gis gëw ma ni polio moo jàppoon Aline Sitoé bi mu nekkee gune man personnel la gëw parce que non seulement du lu euh, lu xewoon néew ma amutoon de mais gëw ma ni que siiwoon na bokk waaw man li ma gën a jàpp mooy loolu mandargal boo xam ne xale booba yàlla moo ko tanal boppam mu am mandargal ba muy wone ngir daan na soox dëgg la waaye yorutoon bant yorutoon békki Aline Sitoé da doon def lépp li moromam yi doon def da ko doon def xam nga suñu jigéen ñi ay jàmbaar lañu jigéen Afrique yépp la mm. yu démb surtout <laughs> <laughs> alors ñoom dañu daan dem di saisonnier Ziguinchor waa Kabrousse même waa Kaasa yëpp sax bëriwutoon lu ñu doon ay mbindaan xam nga mbindaan mu ngi xewee Saint-Louis tey ñu doon mbindu ñaareel ay waalo waalo lañu ne ma sama bokk waalo waalo yi baal ñoom seen woy boobu bu ñu fentoon seen maam yi woyoon loolu day wane ni que ñoom dañoo fierté woon mm-hmm. pour nekk ay mbindaan parce dañoo ne bàyyi leen waalo waalo yi Euh, mbindaan du jaam dans sa doole la kon nag tey lañu ñu ba dañuy ban turu euh, mbindu mbindaan waaye man dama jàppan ni que dans sa doole la ni comme maam ni euh, suñu maam yi waaloy waaloy duñu woyee mm-hmm. donc waa kaasa yi bëriwu toon lu ñu doon ay mbindaan dañ doon dem nekk dokeer dans seen doole wala boog tubalu ya ci Ziguinchor fi nga xam ne fa laa juddu man ñi yàgg ma fa bu ñu jógee woon bu ñoon teer teer si ñoom ñoo doon jël pañe di jël jën yi di génne ko ci gaal yi yóbbu ko ci eh, jaba ba mooy marché ba hmm. donc noonu la mbir mi demee hmm. xam nga xam ku am polio gëmoo ni mën na yenn pañe eh, pañoo jën hmm. wala saaku gerte kon dafa doon soox ginnaaw loolu. daan soox waaw dafa doon soox effectivement kooku moom nit kenn naatable ko donc bi mu demee ba am 18 ans mu jógee Casamance soog a ñëw Dakar bindu si. bi mu ñëwee bindu si dakaar am 18 ans xam nga déjà màgg na ah, gën na nag am xale. Mhm. te ci koo xam ne daan na na xalaat ni mu ko neexee. Mhm. xel mi may ko may ko xelam nàcc mu am mbir mi yàlla bu ko feeñu. laa tax benn conférence defoon naa ko aussi mhm. lii Aline Sitoé mhm. ñu ne mën naa ci wax ci Aline ma ne Aline Sitoé prophétesse et martyr am na benn contradicteur bi wax def ma ne comprendre naa ko parce que jullit bu mag la ak kan la mhm. euh, mu ne ma li ma wax def ma juum warul mën a nekk parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy le dernier de prophètes ma ne ko waaw mais comme da ngay polémique yi mun naa polémique ak yow yaakaar naa ne alxuraan ci boppoon dafa prévoir arrivée du Mahdi kon beneen prophète des na man ko ñaareel ba aussi alxuraan dafa nekk yónnee naa leen yónnee naa leen yónent dë euh, ñu nekk xeet bu nekk yónnee naa leen yónent mm-hmm. boo xam ne dafa wax ak yéen ci seen kàllaama yéen waaw man kon mën naa jàpp ni que àlla euh, mm-hmm. alsit yàlla ko parce que li mu làkk joolaa la mm-hmm. te lu bëri lu muy mën nañ ci dellu siwaat li ma prévoir yëpp am na def na ay miracle def na euh, ay euh, prévision yoo xam ne sa s'est réalisé. mun nga ñu ci wax quelque miracle yi ak euh, bu ma fàtte nga fàttali ma. incha allah am nga bon de wax ci mel ni Aline Sitoé hmm. dafa xaw a xóot dafa xaw a voilà alors bi mu ñëwee Dakar mu am lu ko feeñu benn leer ak benn baat boo xam ne daf ko doon topp saa su ne. ci la Aline Sitoé loolu li mu ko doon wax mooy. parce que bi mu ñëwee euh, Dakar euh, mu ngi dëkkoon Signic euh, waaw fa la dëkkoon d'ailleurs fa la rencontré ki nga xam ne lu jiitu feeñu yàlla bi ki nga xam ne waa Kabrousse la waa air la woon xale bu góor boo xam ne yàlla dafa leen boole woon mu ngi tuddoon Thomas lañ ko doon wooyee waaye Thomas la xam nga joolaa yi seen làmp dafa lakk li sambos bii mm-hmm. parce que ci ñoom laa fe laa meññee donc Thomas moomu moo ko dencoon donc ci la nekk maturité loolu di koy dal naan ko foog nga dellu. Casamance ginnaaw loolu fii la nekkoon ba tey Dakar. waaw waaw fii la euh, amoon na jëkkër bu tuddee euh, Thomas Diatta. d'accord waaw moom moo ne moo tax ne la Thomas la. Mhm. mais ñoom comme dañuy bind. Euh, Thomas dafa am S. Mhm. joolaay di naan Thomas. voilà mais Thomas la tudd. Mhm. Thomas boobu moo ko doon denc. boobu moom bi mu njëkkee ñëw fii mu ngi la dëkkoon. ci sëy boobu tàmbali siyam donc mu nekk mun naa ne bi weesu euh, jànq maanaam weesu jàngamaar te duggagul ci mbirum jeeg complètement ci la ko leer googu ak baat bi doon topp moom mu jàppani moom amul kattan wala moom tuuti na lool pour mu dem ba Casamance. Mm-hmm. dinañ di wax yàlla moom a yónni mm-hmm. loolu moom du ko def loolu di koy topp di koy topp. kon de bi dafa doon bañ. dafa doon bañ di daw carrément dafa doon carrément. voilà te yaakaar naa ni ci ñi am xam-xam parce que wax Sénégal dafa jafe. Sénégal dëkk bu doy waar la. bay wax na nga maandu am na xale bu tuuti boo xam ne man naa ko maam mun naam dina ma déglu te mën na ma jàngal ci li may làkk. moo tax dafa jaar euh, dafa maandu donc. bi muy yaakaar naa ni ay prophètes yu bëri ci yoon boobu la ñuy jaar yàlla feeñu leen yónni leen ñu bañ lool moom mu dal ko ba Sandaga gi gii la daanu la jëkke daanu ah waaw bi mu ñu ximali ko yóbbu ko toujours muy daanu loolu di koy perte de connaissance yëpp euh, euh, euh, ni ñu koy waxatee sax daanu leer mën naa mën naa ne ah. daanu leer mm. voilà kon loolu di koy dal di koy dal di koy sonal lool mujj gi mu ñib mu mujj ñibbi. ndax ñibbil la ko doon wax. da ko ne ñibbil demal Casamance am nga fa mission. mission bi mooy war nga fexe ba euh, mbuum jaam ji dog alors moom mu jàpp ni xale la tuuti na. pour mën a def loolu tey gëmul euh, nit ñi nañ koy nit ñi. te yaakaar naa ni loolu moo daal aussi lu prophète de l'islam bi mu commencé wax la ilaha illallah muhammadu rasulullah euh, dafa jëkka dafa jëkkër bañ ne mhm. su waxee ñi ñi niñ ko gëm yaakaar naa ci sax xam-xam bu gàtt mhm. yàlla ne ko waxal man maa la yónni mhm. li ci des bay màkk ak ñi ñi la ñi bañ a gëm xam nga gis nga déjà ni ñu rapprochement bu ci nekk xam nga ñi ñu war a jàngal ñu ko sénégalais yi ak africain yi bi mu demee effectivement mu commencé di prêcher ñi ñuy ñëw di koy uyu si ba Gambie ba Bissau toute l'Afrique de l'Ouest Mali ñi ñi daan nañu ñëw uyu si Aline Sitoé Aline Sitoé nag <laughs> euh, comment ça s'appelle euh, euh, exactement mun naa jox beneen date mooy 1941 ci la jëkki daanu hmm. en 1941 ci la ci daanu ci Sandaga gi donc euh, bi ñi ñi ñu ba dañuy naan daroon woy waaw dafa fantoon fentoon ay wëy waaw mais loolu yëpp nu ma lay expliquer rek c'est que lu baax ngay def déjà parce que yaa ngi jéem a xam waaye ak li ma la manti mën na wax rek li ma la mën a wax doo ko yëgee mm-hmm. mel ni xale bu jigéen bi nga xam ne yaa leen maase boo xam ne waakaasa la mm-hmm. wala euh, njaago la wala mankaay la wala basare la ñi nga xam ne dañoo nekk gardien tradition africaine alors <clears throat> donc moom Aline Sitoé mu commencé nag du question ay woy la woon déedéet mm. ay saar la doon taari comme léegi par exemple ni ngay nekk di tari di woy xam nga boy taari man nga way boy euh, jàng ay euh, aadis man mm-hmm. nga woyaale mm. wala euh, ci wàllu diine gune ne muy katolik euh, mën nga jaa nekk di jàng bible mais di woyaale mm-hmm. loolu la Aline Sitoé doon def mm-hmm. ñu bëri ndaa di na yaakaar ni ay woy la parce que <laughs> boo jëlee ñun joolaay ak yéen séeréer yi ñu nga xam ne ay gardien temple lañu euh, ñu bëri dañ ma naan tooñ naan yéen joolaay boo leen amee dig sax da ngeen di fecc da di woy waaw xam <laughs> séeréer itam loolu la ngeen di tooñe mm-hmm. njaago yi mankaan ñi ñoo ñi nga xam ne dañoo baaxu maam lañ ko denc ba mm-hmm. léegi lu la ñuy naan wax mais ñi koy wax dañoo xamul parce que ay bët ay gëtu bitim réew bi euh, biti lañ koy xoolee mais bu dee yow xam nga bu ñu woyee li nga xam ndax woy ba neex la mm-hmm. wala buy naxar la fecc bi ci boppam li nga mën a xam ndax feccum naxar la wala feccum bànneex la lu nekk dafa am lu muy signifie wa yooyu la Aline Sitoé doon saar yooyu la Aline Sitoé parce que ay ñaan la ay ñaan a ngi ci biir ay maanaam prédication yaa ngi ci biir mun naan jël nii rek ci nga xam ni ñoo gën a fës mooy tubaab bi la doon xeexal da doon jéem a réveiller la conscience comme les révolutionnaires yi nga xam ni dañuy doon dam bon ñun du puukari du dérén am na mun naam sama xaritu d'enfance yi mhm. ñu dégg dañ doon xumbal université mhm. dem Claudel di dem pavillon art dem feneen di xumbal mhm. di wëy di fecc ak yooyu tout cela pour conscientiser yenn étudiants yi wax ak ñoom ci seen kàllaama voilà ci français ñaareel wala ci wolof dañu doon fent ay way ci wolof loolu moo tax man mii sax dama joolaa la waaye damay taalif ci wolof voilà di taalif ci joolaa pour que étudiant joolaa yi mën a xam euh, li ñu daan wax mhm. donc anicité loolu la daan def bu njëkk bi ci nga xam ne man ñoo ma gën a soxasal ñoom lay tibb mënu ma wax lépp mhm. mooy tubaab bi nu muy yàgg yàgg yàgg naam beneen tubaab boo xam ne yeneen xeetu tubaab yoo xam ne nañ leen loo fal donc tey nga comprendre ni que mhm. français yi nga xam ne ñoo ñëw noot ñu parce que moom français la xamoon am na ay am na ñeneen mais ñoom lu ko soxaloon mooy français yi nga xam ne ñoo ñëw coloniser Sénégal mm-hmm. na am ay tubaab yoo xam ne dinañ leen sonal ñoom tamit mm-hmm. c'est la deuxième guerre mondiale. université di naan li tubaab bi di ñuy jàngal bu ngeen obéir bu ñu nangu mukk parce que tubaab bi dañu bëggoon ragal suñu xel yi dugal ñu leen ñoom seen bëgg-bëgg mm-hmm. ma ñëw ci wàllu mbéy mi mu ne bu ñu béy gerte nañu bay bu béy gerte nañu béy lu ñu dundee rawatina ceeb bu xonq lañ koy waxee mm-hmm. maanaam de riz rouge en Casamance. il euh, y avait plus de 200 variétés li tubaab bi euh, euh, portugais yi wax ci Casamance rek mm-hmm. variété de riz mu ne nañu béy loola bañ a béy. Euh, culture industrielle ni ko tubaab bi waxee. Mm-hmm. et que li wóor mooy ñu bëri sax bi ne nañu ne. dafa doon euh, wootee xeex ak fetal ak yooyu ah man de personnelment tamit gëwma lool parce que ku xam rôle jigéen ñaareel ci Afrique rawatina chez les Joola jigéen sax du téye fetal ci Joola Joolaak moom jigéen du téye fetal parce que la femme yàlla daf ko sakk pour joxe bakkan hmm. waaye du pour dindi bakkan ak lu man ci demee moo tax man personnellement en tant que initié tamit gëw ni dafa woote jël ay gànnaay pour xeex tubaab bi mais dafa ne nañu xeex bañ euh, bi tubaab bi di jël euh, les jeunes dugub leen ci deuxième guerre moom première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale dafa blanc noonu lu ne buñ ko nangu. waaw mais tey sax boo gisee naatañ tuuti sama tax leen laa tuuti j'ai fait un histoire géographie. mais ñu bëri dañuy wax affaire les héros nationaux les héros mais xam naa ni cër jigéen nuñ ko joxlagul doole moo tax te li ngeen di xeex nag gën a dem ba ëllëg leer ëllëg mais yaakaar naa ni les vrais héros les vraies héroïnes africaines joxaguñ ñu leen seen gëdd parce que Aline Sitoé elle a connu la déportation mais eh, déportation la boo xam ne c'est sans retour masul dellu si ah, fa boo xoolee bu baax ci sama gis-gis mm-hmm. tous les gens qui ont refusé de collaborer avec le tubaab du début à la fin ne sont jamais revenus de leur exil mm-hmm. de ci sama xam-xam masul dellusiwaat dellu si waat mm-hmm. masul dellu si waat Aline Sitoé parce que dafa bañ ba tëdd ci weer euh, ci naaj ba pour ma loolu ay signe la pourtant ñu ngi wax Afrique ay héros nationaux mm-hmm. ñoo xam ne tubaab bi dafa leen décoré mais man gëw ma ni nit dina décoré koo xam ne sa noon la. <laughs> doy na waar. kon loolu yëpp ay signes yoo xam ne li ngeen libéré seen bopp d' abord mm-hmm. am ngeen xel. yàlla dogoon ak yéen ba mu leen mayee nekk ngi nekk ay nit yu nite may leen xel ngeen toog di xalaat mm-hmm. li ñuy di wax ñaaral donc euh, elle a la culture industrielle le service militaire am na ñoo xam ne ay résistants la ñu ñu ne waaye ñoom dañu jël sax seen meññeef yóbbu ko mu dem xeexi xeexal tubaab bi ci xel boo xoolee aussi bind yi ñu fi bind mun ma ne jàng naa yëpp de déedéet waaye yi ma si jot a jàng ni mu néew néew néew néew gisuma ci ñi nga xam ne dañoo xeex frontalement tubaab bi ni ko Aline Sitoé defee bu leen déglu tubaab bi bu leen nekk ak moom. bu leen bay li mu santaane. lépp lu mu santaane nañ ko bañ. ah yaakaar naa ni amul ñu ko fi bi lépp lu tubaab bi santaane nañ ko bañ. Sénégal la ñu nekk Afrique la ñu nekk les esprits encore ne sont pas encore arrivés à ce niveau de maturité yoo xam ne tam na yoo xam ne tey soo ko waxee àddina tukki te pourtant dëgg la ay dëgg yu wër la parce que dama ñu jox ay dektal mais boo xoolee taalif yi ñu fin doon bind ak wéy ñun ñun ñii nga xam ne ñoo mujj ci ay euh, petit étudiant révolutionnaire lu ñu bind yëpp c'est contre le tubaab contre les régimes daa mel ni tey opposition sénégalaise lu muy bind yëpp c'est contre le régime waaye nag yow nga ne yow da nga euh, bañkat nga waaye mosoo bind lenn loo xam ne bind nga ko contre wala yee sa nit ñi pour ñu résister loolu ah, gàcca gaalama Aline Sitoé ak yeneen jigéen dem ak tey ngeen di teewlu mbokk yi ci Rewmi FM ñuy waxtaanee Aline Sitoé Diatta dalal ci Sékou Sombou di chercheur nekk itam ko xam ni def na liggéey bu am solo ci Aline Sitoé justement ñu ñëw foofu yàgg nga gëstu ci moom yàgg nga def ay conférence tey euh, génération wu tey bi man ak sama classe gi boo ñu doon wax euh, lu ñu war a roy ci Aline Sitoé Diatta lan lay doon. waaw mais xam nga nit ki boo koy wax. am na wax yoo xam ni gëj man na ko gis yoxo man na ko làmb daj ak loo xam ne waxu militant la man militant Cheikh Anta Diop laa ba ma koy dabi moo tax sama ciy wax tamit damay ne sama gis-gis mm. parce que mën naa ci xër bi wax ci loo xam ni euh, amul parce que teguma ko fen ci sama xalaat wala sama taaral laa ko teg waaye ñaareel nag mun naa ne nation nègre et culture moo ko bind mun naa ne il a rendu opératoire le fait que les Égyptiens étaient des Noirs. néew ma moo ko jëkkee wax déedéet. waaye moom moo scientifiquement prouvé avec la linguistique dans tous les domaines mu prouvé ni que ñooñu c'est des voilà loolu la nit ñi war a di def. mais nag li ma leen mën a wax comme royukaay gëstu leen néew ma leen gën gëmm néew ma kenn gëmm waaye nañu jéem a dindi li may wax teg ci leneen loo xam ne dañ ko basé sur culture. Kabrousse fii rek la air eh, sorewut man daan naa xeex ñu ba dañu doon xeex pour Aline Sitoé maanaam ay destam ñëw mais ñooñu dañoo xamul Casamance dañoo xamul ini ils sont pas initiés loolu mara deetaali la hmm. ah mais oui. kon d'accord leen ci. man personnellement d'accord ma ci xam naa ne ay bokkam d'accord ñu si problème lay indi. ah oui ah, mais oui. yan genre problème. mais Afrique waxuma la parce que nit ñi dañuy rëy. Samori ñu transféré ay restam mm. parce que Samori jullit la <laughs> comprendre nga mm. bi dañ koy def maanaam catholicisme daf koy def mm. l'islam daf koy def mais képp koo xam ne africain dégg nga te resté dans la spiritualité africaine doo ko nangu ah parce que nit kenn ko suul di ko sulli c'est un sacrilège ça ñu suul nit ba yi nga dem sulli ko pour lan bañ nañ ko ba effectivement ci wàllu googu boo xoolee Afrique daanu ñoon matérialiser bàmmeel am na kilifa bu mag xaw ma daa war naa ko mën a wax wala moo ko ci ñi nga xam ne ñoo doon xeex ci indépendance. Mm-hmm. gën na àddina waaye kenn xamul bàmmeel na fu man nekk ba léegi. dañuy suul rek bàyyi noonu. mais dañuy suul mu jeex. parce que diine yëpp a d'accord ni nit yaram ji la laam ak laam. ruub ruub bi du dee moo may dem ci yàlla yaram bi moo fi des. waaw li fi des nga xam ne suuf la catholique gi dañoo ne on est né poussière on devient poussière mm-hmm. waaw nga dem di euh, tabax ay milliards ci suuf soosa mm-hmm. di jaamu maanaam suuf soosu comme mu euh, mel ni new ma jaamul loolu la de waaye day mel ni loolaa tax on comprend un peu beaucoup de choses yenn xalaat yi euh, africain di am léegi donc loolu spiritualité africain daf ko daf ko dax bu mm-hmm. ñu xasee suul nit ba suul nañ ko jeex na. mais Makka euh, euh, armeel ya fa nekk amul tabax amul dara dañuy suul rek. mais dégg li ma la wax dama ne boo demoon dans tout le Kaasa dans toute l' Afrique laa la wax. fii ba Éthiopie ba Afrique du Sud foo dem te ñu nekk ci spiritualité africaine kenn du ko matérialiser sax parce que dafa dem ba seey suuf la par contre ci li ñuy wax bois sacré fu nekk am na foo xam ne foofu la esprit boobu mën a nekk fa ngay dem di ñaan ci maam ya waaye doo tabax donc kooka ñu denc ko fu ñu koy denc mais waa ñun ñii man mii moom laa gëm waa air loolu la ñu gëm maanaam ruu euh, kii euh, Aline Sitoé mu ngi air mu ngi Cabrousse ah oui. yaram ba kon moo des fële waaye. ruu yaram ba ma fa des te yaram sax lu fa des de bu dee am na lu fa des sax. Ah, ndax poussière la woon te suuf lay <laughs> dellu. jeex la kon nag suñu lan lay fay jëli ñu indi ko. mais dafa indi scandale xam nga am na ñoo xam ne euh, dans tous les euh, diine yu nekk dafa am ñoo xam ne jiixal mais am na ñu gëm nit ki assisté deewal ba lay ah, comme am na ñoo xam ne lay ci wàllu goo jël ñii seen gëm-gëm dafa doy waar. waaw ñooñu de boo leen ne ay desit la ñuy indi da leen di. mais mais dafa leen di choqué. mais ñi koy wax ñëpp boo leen laajee ndax c'est des joolaa du kaasa. ñaareel du ñu ay jola Kaasa pur am naa sama benn mag kilifa lawul bu mag ci réew mi euh, dina lakk Joola fole la mais amul benn initiation boo xam ne def na ko kon xamul te ñi ñi duñ ci sore parce que nous sommes tenus aussi par le secret de l'initiation mm-hmm. donc nit ñi bu ñuy wax nañu déglu ñi nga xam ne ñoo xam waaye Sénégal moom <laughs> li fi doy waar mooy ñu xam duñu wax. ñi xamul ñooy wax sama gi peut-être mooy de 15 minutes moo ñu dese euh, ñu bëgg a ñëw ni ma la ko laajee sànq ci ay jikkoy Aline Sitoé ndax euh, émission bi bu waxtaanee euh, ku mel ni Aline Sitoé wala ñeneen ñoo xam ne jar nañoo waxtaanee ndax ay royuwaay lañu ndax ay nit ñu yàlla yëkkati woon lañu dañuy bëgg a jukki yenn ci seen ay jikko wala ci seen ay taxawaay ngir mu jariñ ndaw yi nga xam ne ñoo fi nekk tey Aline Sitoé boo ñu ci doon wax yenn ci ay taxawaay wala. jikko yoo xam ne bëgg nga ndaw yi jël ko tey yan lay doon. waaw mais yaakaar naa ni ci taxawaayam moom wax naa ci. man daan dafa doon bañ nooteel. da doon bañ. bañkat la woon bañkat la woon musul nangu ku noot kenn. Mhm. parce que nee naa loolu la ñu yaree loolu mooy spiritualité africaine. boo leen xoolee nga may ma tuuti ci waa ma ñëw ci lool mhm. mais Afrique amuñu prison je parle de l'Afrique traditionnelle. Mhm. prison amul. d'accord nga ak man lool. Mhm. baatu prison amul. kaso lañ lay wax te kaso ça veut kaso. Mhm. wala ñu ne la lañ euh, ko tëj. Mhm. déedéet tëj c'est une dañ il est enfermé en prison loolu lañ traduire. donc amul. ndax nga mën a gis ces sociétés humaines boo xam ne amul kaso amul dagg tànk amul dagg loxo amul lenn amul fu fuete nit ki ba noppi ñun. mu créer société bi nga xam ne c'est l'une des meilleures société humaines qui a existé sur terre loolu la mooy baax lañu doon wootee ñuy nañuy yërmande nañuy euh, la sanction suprême en Afrique la sanction suprême c'est le bannissement mais kii loolu la ñu yaree woon Aline Sitoé ci loolu la ñu yaree woon africain yi nit ki na nga ko bàyyi na ko jëm a changé mm-hmm. soo ko manee soo ko manul lu mu def yow doo yaa koy fajal sa bopp mm-hmm. yàlla moo fi nekkal moo fi xet waaye diw rey na nit ñu rey ko metti na dégg la boobu mm-hmm. bu ñu reyee sa mbokk waaye ki rey kooka xam nañ ko war a rey tamit mm-hmm. parce que nit moom tamit nit la rey mm-hmm. donc jikko yooyu loolaal bëgg ngeen xam ñan ñoo doon seen maam ñan ñoo doon ceddo yi ñuy ŋànk tey luñ doon dundee bu leeree ba noppi nag ma ñëw ci li nga xam ne muy jikko yi année man yaakaar naa ni ci Aline Sitoé li ma ci gis muy gëm waaw parce que bu gëmutoon du nekk jigéen yoru gànnaay xeexul réewul kenn mu nangu opposé wu aux européens ñi nga xam ne ils avaient des armes de destruction massive mm-hmm. man di mosuma dégg fu ma demee xare ji mosuma ko dégg wax la doon wax kon fit ak la ak la mm-hmm. te fit googu gëmma ak la ñaareel ba aussi tey dañuy naan euh, boo xoolee ñun te ñun nii ak ma man mii dañuy naan dañoo gëm waaye dañoo gëm te sama kilifa su ma xootale ma daw waaye ana bu yàlla yàlla moo sàkk ñëpp moom ma yor mu yor ñëpp donc jigéen ñi tey war nañu am ngëm ngëm gi nag ku nekk ak liggéey nga gëm te mu nekk mu dëkku ci yow man loolu laa mën a woote mhm. boo gëmee xërëm bi boo gëmee euh, da ngay gëm daal na ko gëm ba mu jeex aussi mu nekk koo xam ne dafa nekk tolérante parce que mu mosutoon force kenn lii laa gëm na ñëpp gëm loolu forcément daanu def noonu waaye nag day bañ ba tëdd ci naaj donc euh, nangu parce que dafa nee naa su ma wax ci Ahlu Société duma ci pare en sos euh, 86 en 86 bi mu fi jógee dem xam nga jëkkëram fi la ko bàyyi Thomas donc c'est Gétos gay moo ko mujj tàkk ci euh, air. ah jëkkër ji mu fi bàyyi woon nag. dañoo tas ah ki nangul dem. waaw parce que am na ñu doon naan dafa dof. balaa <laughs> ko ça revient encore li ma la ci li ma ci sànq ci euh, prophètes yi. Mm-hmm. ñaareel bu prophète génnee rek dañu dafa dof. Ah. yaakaar naa ni ci li ma xam. tuuti ci sama bokk laay nii parce que mm-hmm. Ousseynou Laay eh, yal na ko yàlla xare àjjana sama xare mm-hmm. la woon ñu bëri xam nañ ma sama diggante ak moom mm-hmm. n'est-ce yaakaar naa ni maamam li maamu bi mu wootee dañu dafa dafa dof effectivement fekk yaay ja ngi doog a génn àddina ñu ne looloo wal moo ko jàpp donc <laughs> Aline Sitoé tey loolu yëpp jaar na ci mais je nit ki da ngay gëm mooy ci nga li nga gëm waaw l'essentiel def lu baax moo ci moo war ma ne donc Euh, munoo woote yow ci diine bi nga nekk. Mhm. ak bu manti doon benn noppi bañ sa doom wujj wala sa dëkkandoo mu gënal la euh, sa doom gënal la keneen. Mhm. déedéet ku yor réew mi ëllëg ku yor àddina gi ëllëg ki jubal ëllëg àddina bi kenn xamu ko nit ki nag ku nekk na nga ko considéré comme sa bopp. nga yéene sa bopp ni nga yéene ñëpp li mhm. nga yéene sa doom nga yónnee ko doomu jàmbur li nga yéene sa papa nga yónnee ko papa ñëpp yaakaar naa ni loolu la Aline Sitoé ci gàttal la ñu wax mm-hmm. euh, c'est domage mm-hmm. parce que xaw ma ndax dinaa yàlla dina ma may bàkkan bi ma téere yi ma bëgg muul yëpp yàlla may sottal ma ko bi ma ba mañ ko bay mm-hmm. jaboot yi parce que ñun takku euh, takkusaan jot na euh, timis li ñu fukk waaye diggante takkusaan ak timis lu ne xaj na ci yàlla baax na sàmb kon xëy na fi ñuy jeexalee rek mooy euh, tey booy xool euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu fi am muy suñu maam yu màgg yu tedd yi li ñu fi def yépp ak ni ñu meloon yépp daanaka mel na ni euh, fullaal gi ñu waroon a def ci ñoom defuñu ko lu bari dañ ko umpale ci ñoom loola yow noo ko jàngale ak peut en tant que chercheur yan recommandation ngay joxe pour que ñi nga xam ne lii yépp def nañ ko fi ñu bañ leen fàtte seeni jëf bañ a itam ñu bañ a xëy na euh, xëy rek naax saay kenn dootul wax seeni wax. waaw mais d'abord xal euh, xeex bi dëgg la état man ci état laa bokk. mais toute ma vie j'ai ñu ma xam-xam nañu ci loolu ci man. mais man damaa yaakaar ne peut-être que waaw mais c'est normal man duma président de la République. li wóor mooy ku nekk ni nga gisee même ni ñu toogee ñun ñëpp bu ñu toogee téeméer nit toog toogaay gi du benn ku nekk ni nga toogee la. <laughs> nest man su ma amoon dogal tey li ma jëkk def mooy fexe ba ñu jàngal nit ñi ci seen kàllaama man damay def damay taalif ci joola traduire naa la théorie d'Einstein en joola amul lu mun a def ci làkku jàmbur loo xam ne mun ma ko def sama làkk kon loolu problème boobu amat poseetul ñaareel ba aussi kenn du la noot mu ba bu ne la taaru nga foog mu jéemal la gàkka-gàkkal ma jox la benn exemple fii mhm. macha allah waaye bu dee bi nga juddoo bee léegi sa papa dafa naan dangaa ñaaw mhm. sa yaay nee dangaa ñaaw sa waa kër nee dañ ñaa dangaa ñaaw sa koñ bi yëpp nee dangaa ñaaw te foto amul seetu amul leneen am loo xam ne mun nga ci sa bopp mhm. da ngay gëm ne dangaa ñaaw da nga dem ba gëm loolu nga toll fi nga toll photo ñëw ñu ngi walla ne ngom kii de yowa looy wax da nga naan kii du parce que photo bi nga gis kooku taaru na toolal googu nga xam ne teggoon loolu sa bopp loolu moo nekk di ñuy gaañ boo waxoon tey nee naa la yu bëri tey soo ko waxoon tey muy digg ping àddina tukki tey dëgg la mais xoolal Galilée bi mu naan la Terre tourne mm-hmm. dëgg ping la mais xoolal lañ ko fu mujj kan moo am dëgg yeex na parce que donc man li ma bëgg mooy ngeen surtout yéen xale yi Afrique ba Afrique wëlëngal wax naa ko ci njëlbeen kenn mu fi mu mu su fi ñàkk gëm yàlla amul tedd yi ñuy wax ñëpp kenn gënu leen gëm ñàkk wax naa ko fi mel ne xalif général sans papa la woon <laughs> man ma ni man cedda laa donte ci l'islam laa juddoo mais dama ma ko wax fac de droit laa ko waxee xam nañ lool ci man alors ma ne ko mais papa ma ne ko waaw ne man ko mais ñun dañ ñuy ŋañ mais ñun lu ñu daan def dañ ko def bëccëg ndànk xam dégg la man yàlla may na ma du ma naan du ma tuux du ma yëy ma naan café du ma lekk beurre du ma lekk mburu yooyu yëpp noo ko lekk. ah oui non sama jaam bi moom lu muy lekk. man ul lay ndikkee. ul mu zone moomu. moom lay ndikkee. foo koy jëlee. Casamance am naa ci. saaku fii bee at <laughs> yaa ngi may dégg. donc sama ñankatang ak sama géejee sama tiir moom lay añee. ba tey ba tey ba suba moom lay añee tey te ya tey sa yaakaar na ni yoxos lay lekkee. ah oui jeex na yàpp soppu mbokk <laughs> alors donc loolu yëpp pour te dire lan. Mhm. pour te dire il faut pas que ñi gëmuloo ñu nii. ñëw boo jëlee xar nga jëlee ko Norvège indi ko Sénégal mu de hmm. ah oui. parce que tàmmul climat bi lekk gi mu fi lekk lu moom la xam man joolaa la mm. je suis fier d'être joola donc li ñu ma yaree woon moom lay lekk ba léegi samay doom nag suñu bu la dee ñu jël beurre ak chocolat ak croissant bu dee am nañ ko waaye man duma ko lekk parce que gènes yi nekk ci sama yaram mm-hmm. depuis maam ya loo moo tax ñi ñuy recommander ñi ñi di lekk tout ce qui est feuille ce qui est herbe mm-hmm. et tout cela parce qu'on a commencé par brouter mm-hmm. avant de Euh, euh, carnivore et avant de devenir omnivore donc loolu rek la donc il faut que ñu dellu suñu bopp xam ñun ñu ñan fa ne te waruñ ko xaar keneen li ñuy wax yépp te mu jógee bitim réew ak fu mu mënti jógee penku soow euh, bëtu gànnaar axama bëtu <laughs> saalum mm. lépp nañu tegaat suñu bopp ñu xool ndax loolu la lu ñu ñuy wax ci suñu maam yi yépp est-ce que loolu la li ñuy li ñuy jàngal est-ce que lool la bu ñu gëstoo nag te muy lool ñu bakka man ne sonk sama kilifa boobu sama papa jóg sama papa la woon mm-hmm. musuma nekk ko musuma nekk ko donc moom sama papa te mu gëm ma lool jàll macha allah euh, mérité wu ma ko waaye ci mbaaxam la woon man ko ñun maam mi ngeen di wax suñu namoon jigéen lay mm-hmm. ko ne fat comme ça kanam ñëpp daw ak moom am ah ah, oui mais nëbbuñu ko parce que mënuñu ko nëbbee yàlla. ñu bëgg a sàngara ñu naan benn ah ji tag li tag maa ko léegi boo demee ci li ci àddina Sénégal gi hmm. fi jaar ci yi mën nañ ko naan koy naan ah, am na <laughs> ah, dégg naa sëriñ bu baax sax xam ko daan wéy waxal ni jaay sàngara. Hmm. mu ne mu nekk tontu ma léegi sax ah. mu ne non jarul tere. bu dee ñun ñi nga xam ne ñun ñooy seen ñi ñoo fi ñoo fi ëpp quatre-vingt-dix-neuf pour cent lañ ma wax ñi bañ euh, respecté l'islam kon sàngara du jar su jarulee kenn du ko kenn du ko jaay. Ah, <laughs> jeex na comprendre donc man dama ne li ma di invité mooy bu ñu ci xaar kenn. Mm-hmm. état bi nag su ko defoon mu gën a neex dafay gën a yomb mm-hmm. waaye état bu ko defulee tamit aussi au niveau individuel ku nekk jéem a gëstu man may kan mm-hmm. fan laa jógee. la laa doon def ci àddina loolu Cheikh Anta Diop woote naka ci gëstu googu la doon seet doomu aadama eh, nit ku ñuul fu mu jógee ki la rëgal dem dem dem ba découvrir ndeke aadama awa ay nit ñun ñuul lañu ci la découvrir ndeke égyptien ñu ñuy roy ay nit yu ñuul lañu nit ñi bind ci lu ci nekk contre ko def ko lu nekk mhm. mais dégg rek mooy wéy parce que yàlla mooy dégg yàlla mooy baax mhm. yàlla mooy taar tant yaa ngi ci loolu ak boo euh, bu doon yi da nga wéet sax mhm. bi nga dem bee dootoo wét parce que chanter wétetul mm-hmm. benn question moo mujj ndax waxtu bi jeex na tàkk Aline Sitoé bi muy génn àdduna bàyyi na doom waaw si si loolu xam nga man la mën na ci wax dara ndeysaan euh, benn doom bu jigéen la amoon mm-hmm. ñawlees la tudd xamu tu tubaab bi xawma ko mais moom ñawlees la tudd borom këram gu njëkk gi la ko amal wala ku ah, non kii amul euh, euh, ñawlees ndeysaan yal na ko yàlla xaare àjjana man ak jëm si yàlla si ñoom Bruno ñoo yóbboon niw bi. Mm. Kabros sañ ko denc. voilà donc soroor sax kër ñoom Aline Sitoé donc bayoon euh, doom mu ngi ne woon moom ci boppam mm. mais mu jéggi bi mu feebaree lañ ko fi indi Bruno yaakaar naa ni moo ko parce que Bruno Diatta voilà mbokkam la ay mba oh, c'est la famille des les les ñoom Bruno euh, donc euh, mu gaañu fi bu koor bi yaa koy yàlla xaaja àjjana jërëjëf Samb foofu la ñuy jeexalee <laughs> waxtaan bi di la gërëm ci waxtaan bu am solo bi dinaa ñëw na nga may ma ci uul bi ndax uul géej naa ko gis trop. gëm gëm gëm gëm. nu mu tudd euh, euh, euh, sa buur laa. déedéet léegi dama la <laughs> <laughs> sant di la gërëm Seckou Samb ci waxtaan bu am solo bi ci Aline Sitoé Diatta muy chercheur nekk itam président comité de pilotage pôle de développement de la Casamance. Laurence euh, inspecteur du trésor de formation nekk itam ministre conseiller amoon nañu mbégte dalal la ci Demb ak Tay bi gërëm ñi doon déglu ñëpp gërëm Jaawo Jàllo mi nekkoon ci euh, machine bi Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaan bi mun ngeen dem ci page euh, bu réew mi FM ci réew mi point com bu ngeen ko fa jaare incha allah di ngeen ko fa fekk wala ci YouTube bi également réew mi officiel ngeen mun koo dégluwaat foofu bu fekkente ni daf leen rëcc wala ngeen déglu ko te doyalu leen ci ndax sama jàmm bi waxtaan bi am na solo kon mbokk yi ñu yendoog jàmm dellu di sargal eh, jigéen ñëpp ci wi mars bi ba dimanche eh, incha allah.